ma koy rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xamante ne moom la gouvernement bi def ndax engagement bi ñu jëloon mooy fexe ba élection yi ñu def ko ci ci ci ci jàmm ba pare ko organiser ko ni ñu ko daan organiser maanaam lépp jaar ci yoon loolu nag dañ ciy félicité bu baax a baax le ministre de l'intérieur euh, ce matin suba ba léegi nit ñaa ngi génn en masse di ñëw di wate si euh, bureau de vote yëpp muy ngi commencé fees donc rang yi gudd na cela veut dire que cela veut dire tout simplement que Sénégal ñoo fas yéene voté en masse jàpp naa ne laal li bu continuer fii ak fii ak 18 heures taux de participation bi ñu war a xaar euh, en tout cas mu nekk taux de participation bu baax dina dina am incha allah. def nga tour bi euh, loo saytu euh, est tuuti jafe-jafe wala manquement boo xam ne am na ci def nañ tour bi sànq globalement je pense que lépp a ngi jaar si yoon. bon centre de vote yi à temps citoyens yi la ñu ñëw le matériel électoral est disponible euh, amul benn contestation ci ci ci ci organisation élection bi euh, représentant de vote également ñu ngi fi pour l' essentiel en ce qui nous concerne c' est vrai que am quelques manquements mais bariwul euh, je pense que loolu amul benn impact sur le déroulement du scrutin non cela veut dire que li ma si jàngat mooy sénégalais le Sénégal c' est un peuple mature en matière d'élection maanaam ñuy wote nii troisième âge bi ñu commencé wote ñun boobu juddooguñu donc xam nañ ñu voté xam nañ la mooy sens vote xam na la mooy portée bi également et à chaque fois que de besoin sénégalais dañuy exprimer seen seen seen seen sentiment seen ay préoccupations à travers le vote et à chaque fois également li sénégalais yi décidé à travers les jeunes moom mooy correspondre effectivement ak seen yitte donc le troisième âge est mobilisé les jeunes également sont mobilisés les femmes donc c' est un électron assez important ci ci ci réew mi tey jàpp naa aussi jar na bàyyi xel baax a baax. am nga ci yaakaar ci waaw am ci yaakaar baax on a fait très bonne campagne.